Mãe, tudo uma maroca em jai. Mãe, mãe, ela é Horizon School. Mãe, eu uh, Senegal, se você se setalbi. Mina yow e, uh, nak ñu jéglé ko école bi c'est-à-dire réew nga xamante ni le président de la république moo ko woote maa Thank you.